passager te le CNG nekkul ne dafay ut ay xaalis yi ñun dañ ko defoon bañ koy def boobu kenn programme wu dara yëguñu dara ay même yow boo jàppee sa sa sa galaare mhm. te ñëw déclaré ko CNG mhm. CNG dafay jàpp dara amul mhm. dara amul nag CNG ne au lieu booy toog di naan ataay di dem nak si lu noonu dañ leen tegal lii ñu ñëw vraiment foofu maintenant Mbaye Colombe il est en règle vous l'avez autorisé à organiser. l'a autorisé à organiser il est en règle oui am na licence léegi Ah, am na licence. sa licence jot na ko dénk. Ah, waaw mais CNG est-ce parfois tamit doo leen jànkonteel ay ñoo xam ne dañuy ab licence di di di di si beneen est-ce que loolu mosul am. di organiser ci. si beneen tour. bon non xam nga yooyu. su hmm. ko yëgee rek. waaw. daanaka kii nañ eh, eh, eh, intervenir nañ. bu ñu déggee diw. mais loolu am na. non xam nga kii déjà c'est révélateur wax na ñëw na ne moom tur diw la doon tëggal kii licence diw la doon tëggee. waaw xam nga ça c'est très grave. Hmm. usurpé di tëgg. Hmm. te moom mun na tëgg sax ci région yi si je ne si je ne m'abuse hein. Kalom waaw hmm. alors donc bu fekkee loolu am na <laughs> su ma fàttewul je crois que mun naa dégg ne mu ngi tëgg ci benn région fii. Hmm. mais pour mettre fin à tout sax lan ngeen yan lan yan lan lan mesure ngeen di war a jël pour mettre fin à tout ça. non xam nga problème amul bu nit ñi yóbbu problème fu mu amul. la mesure elle est claire elle réglementaire balaa nga tëgg làmb da ngay nekk promoteur ku nekk promoteur mënoo tëgg làmb. boo ko defee c'est n'importe quoi. boo nekkee promoteur dina jafe rek parce que tey su ma amee licence. ku mel ni bës bëgg tëgg làmb. boo war a fay cent mille francs ma ne ko non ah, loolu bàyyi ma jox la sama licence man man maay dem def régulariser def lépp. publicité loolu moom bëri na léegi loolu. moom kay engagé. non xam loolu gars yi dañ koy def loolu moom day c'est pas la même chose. Mhm. bu ñu yëgee ne yow. soo joxee sa daa ah, kii mu ñëw tëgg indi sans frais. daa d'abord dañ koy nangu ba pare suspendre la. non ah maanaam du ma ko jox sama licence gars yi noonu def peut man mooy dem man gis naa ay promoteur yu koy def. Ah, maanaam maanaam bëgg a comme gannaaw yi bakkan bëgg a tëgg làmb. Ah. mais man maay dem ne man maay tëgg làmb ji. mais yow yow gis. kon yow on daan mekk yow la. la responsabilité la responsabilité civile et pénale te revient. Mm-hmm. lu fa am yow la. waaw c'est ça la vérité. sa mm-hmm. licence nga indi. waaw yaay tëgg. lu fa am yow la. ok lu fa am yow la donc sa à dire que là c'est très clair. Mm-hmm. maintenant bu fekkee ne Iba Kane sa licence ne damay tëgg voilà kii moom ko abal ak yooyu ñu ne ah bon la licence on retient la la suspendre la. nangu licence waaw ñu hmm. ne sa licence doo jox ko beneen bëri. waaw mu ne bëri kii ko gis ko. waaw na mbir yu sax fii. am na am ko doon def mais bàyyi nañ ko nag. Hmm. wala bu wàññeeku na bu baax. waaw wàññeeku na bu baax kay. yooyu moom seede naa ko. Hmm. ba kii man téye licence yi. sa oto. c'est c'est la même chose le mercredi CNG lan moo tax. bon mercredi CNG ñun bàyyiwuñ ko. yaa ko wax sa introduction léegi. Euh, làmb ji macha allah je touche du bois. vraiment mu ngi avancé bi promoteur yi nangu ko suñu lox pour te dire que ñun duñuy duñu xëccoog promoteur. promoteur ñoo leen man am naa trois cent mbër. dama bëgg tëgg tous les mercredis. ñu ne yoon waa ñu duñu xëccoog promoteur. et c'est ça la vérité. bañ nañ ko drapeau soldat dañ nañu buñ koy def. ñu koy def kenn du tëgg làmb Sénégal ñu teel ko yëgle nag ba ñëpp yëg ko comme ça nit ñi moytu date boobu xanaa lu koy moo gën a leer promoteur bi ñëwee di ko jël te ko jëloon sax gaa yi nga koy ba léegi naan noo dañ ko soxla mercredi bii jox ñu ko te ñu li ñu bëggoon moo nekkoon làmb ji <coughs> pardon bu mu soomee moo taxoon ñu jëloon mercredi laare ni chaque fois nam animation de lutte nañ ñu tëgg mercredi yi su ma sañoon <coughs> lundi mardi mercredi jeudi samedi dimanche yëpp dañuy tëgg làmb vendredi la ñuy tëb su ma sañoon dañ xale yii duñ noppale ko dañuy bugg di bëre rek di bëre moo tax Ouzin production jël les mercredi jël ko merci mm. donc am ay mercredi kër pourquoi pas ngeen def benn planning boo xamante ne au chaque mois ñu ne CNG bi kat am na si benn les mercredi boo xamante mercredi kër bëriwul de Ouzin yi tëggul mm-hmm. waaw su ma calendrier yi mm-hmm. ma gis presque c' est tout est rempli. Mhm. te fi mu ne aussi xam nga dafay baax léegi aussi ni ñi xaw a reposer wu. Mhm. gis nga ci kaa fii ba fin d' mhm. fin de saison yam tous les dimanches. sont déjà occupés. tous les dimanches fi mu août. les samedis quatre vingt quinze pour cent sont occupés. da nga ne août saison août lay tëj. waaw dañ bëgg a pousse tuuti. Ah. xam nga année xam nga aussi dafa waaw. ak weeri koor bi ci biir. boo ko mm-hmm. dafay coupe d'Afrique beeg yooyu noonu coupe d'Afrique bi dafay mm-hmm. wàññi affaire bi di démb. Mm-hmm. même coupe d'Afrique bi dati sa gars yi jëluñ ko woon. après lañ gars yi ñëw daw si jël yenn yi. bi Sénégal toogee. donc ce sera au mois d'août jusqu'à fin août. ou bien ay 15 août peut-être xam naa ñu. 15 août allah li ma ko bëgg laaj rek ci aspect boobu mooy déjà ñu ngi gis publicité bi merci beaucoup à la régie ñuy gis euh, publicité wu CNG bi par rapport à la mise de 5 euh, millions bi war a am dimanche quand il faut les féliciter mise de 5 millions. dum naa ne ubbali dina ngembu. mais pourquoi pas France sax ak ñeneen ak ñeneen ngembu macha allah moom si. mais mais président Bira. Mm. Euh, li mu fi wax itam xel mun na ko nangu. Mm. parce yàgg nañoo gis ñaari gala wala ñetti gala lutte simple amandoo. yàgg naa ko fekkee. si même si même si même département bi. lutte avec frappe laay dë yëgoon ni que. Mm. dañ ko tere. ñaari galaat lutte avec frappe amoon ci même département bi. moo tax bu ñu tëggee woon Iba Mar Diop ñu ne peut-être mënuñu tëgg xaw ma fan encore yu mel noonu daawoon naa ko dégg. mais ba ñëwee Iba doon tëgg kii tëgg. Iba tëgg arène nationale tëgg parce que ah. bokkuñ département su ma juumul. <laughs> Mhm. mais décision boobu la moom laa moom laa moom laa retenu doon mhm. dans le passé parce que amoon na su ma juumul ñaari stade yu ñu doon bëree comme Demba Diop ak Iba Mar. dans le passé ou musul am problème mu ñaari galaat simple dans le même département. Mhm. mun ngay tëgg da nga doon gis sax jag sa ay moment da doon tëggi ji gaal gi. ba pare Adrien Senghor di tëgg. ñu nekk en compétition. Mhm, mhm. ñuy déployer wu Adrien Senghor déployer gaal te affaire bi yaatu na. comme ni ko président waxee keroog le le le gala de petite production. pour wane ni làmb mu ngi dox. ñu ñu nekkoon arène nationale on avait insisté pour que petit mu jënd gasoil pour ñu taal écran géant bi. bu ko taalee on avait montré on on avait une équipe à nu mu tudd Adrien Senghor mm-hmm. et une équipe au euh, à l'arène nationale ñu def ko triplex mm-hmm. ñi ñi nekkoon au niveau de l'arène nationale dañu seetaan foofu en direct finalu Adrien Senghor bi di gis aada booy bawal di jël di jël final bi donc mm-hmm. loolu day wane ni que làmb ngi dox parce que football fàttalikul les multiplex da ngay toog fi nga toog gis dix matchs amandoo quinze matchs amandoo des fois même à Londres da ngay gis stade yi day jegewoo Arsenal Tottenham ak yooyu noonu yëpp. gars dañuy jegewoo Chelsea question de mentalité la tamit. Chelsea ñu nekk ci même <laughs> ville bi match yëpp stade yëpp fees. Mm. donc loolu xel mën na ko nangu. par contre lan moo war a indi coow li mooy c'est pas la première fois que ay promoteur di plaindre comme quoi CNG daf leen di concurrencer. Mm. parce que yàgg naa dégg Jackson di ko wax. léegi est-ce du CNG moo war a redéfinir sa politique. Mm-hmm. wax ni que est-ce dafay tëgg làmb wax ni que promoteurs yi. attention su ma amee deux cent millions parce que léegi coow li ci may kalom la yem ci Jax production la yem mais coow li mun na dem ba ci Luc Nicolaï Gaston production wak Albourakh Events ak jàmbaar li tax coow li mun a àgg foofu mooy CNG tey mun na am un milliard deux milliards ne damay organiser tournoi Roi des Arènes boobaa coow li day jóge ci ñoom may kalom dem nag ci promoteur yu mag yi parce que dañuy naan CNG mooy xëccoog ñun mbër yu mag y CNG moo war redéfinir lan la leen ban mission la leen ministre bi jox est-ce que am ngeen droit organiser ay grands combats wala wala concurrencer les promoteurs monsieur le président. concurrencer c'est trop dire c'est un mot lourd mais en fait y a pas de concurrence vous savez démb am na promoteur mag ñu suma bureau xam nga li wax mu dégg président mu mais moom su nekkoon ne moom mooy tëgg arène nationale dix millions dimanche bii est-ce que nit ñi mën na cee wax un promoteur mu ne su nekkoon ne moom mooy tëgg dama man ex production su ma doon tëgg le dimanche cinq bii promoteur est-ce que ñeme na wax. te daluma ci kaw kon lan mooy problème bi manoo pare c'est le mot CNG qui dérange et je vous réponds CNG am na droit tëgg ay làmb tëgg am na droit tëgg ay làmb ça va si sa dafa bokk ci mission xam nga redynami redynamisation de la lutte ci bokk redynamiser la lutte fu am vide war nañ ko combler waruñ nangu mu am vide mu ngi mel ni rek nga ne football nga ne waaw mais est-ce que yow mun war ngeen am euh, am nañ droit def match amical fii wala match fële match fële est-ce que vous voyez un pourtant par respect équipe nationale buy football mais gars yi duñ football duñ def match Dakar est-ce que vous voyez ce que ça fait la Société nationale quand organise par respect les gens war a non nañ bàyyi kii moom comme de une fois ou deux fois la par an lay am CNG su ko neexee moom un milliard mu ne man chaque semaine je mets dix millions pour mais du ko def parce que dafay bañ a déranger déggoo quintessence lan la mooy que ne ñun dañoo jàppoon ne le cinq kenn du tëgg te kon mbëri dañuy chômer te ñun bëgguñ mbëri chômer. loolu moo ko indi te bañ koy réunion dañu ne en tout cas gisuma ku jël risque. tëgg làmb en moins de trois semaines ñi programmé yëpp ci biir biir durée boobu lañ ko programmé en vérité. xam nga fii Sénégal ñun ñëpp bokk te gis nga xoolal lu yendu ci buzz mun na fanaane ci Ibakan mhm. wala mu ci Boucar. parce que da ngay dugg fii damay dugg ne bës may ma ndox ma naan ñu ne pourtant day président CNG ca bës la la la naanee ndox ma ndox mu seetlu barki démb. vous comprenez un peu damay image loolu mais loolu la mais en fait loolu jaru ko jaru ko xam nga pro gis nga CNG du moromi promoteur. parce que CNG moom mooy gérer promoteur kilifaam la kon li muy def daf ko war a xam. mais nag gàddu rajo yi di wax ak ak yooyu. yow jaru ko da ngay juum. Ah. te boo juumee. Mm-hmm. xam nga am loo xam ne mën a dal sa kaw. c'est ça c'est ça mais président damay xool si benn domaine mooy. pour man est-ce que amul échec vis-à-vis de votre part ñu jox leen une arène nationale flambant neuve. Mm-hmm. bi nga xam ne ça